loolu nag daw yaram image boobu noonu ma koy félicité ci loolu loolu day wane que yow vrai sportif nga Ama Baldé léegi nag conseil yi bu ma am bu may jox Ama Baldé xam nga mooy leen ay xale yu ndaw yu bëri ñoo ko topp boo yi ndaw yi lay dégager Jules Baldé rek mu dese Jules Baldé ak ay mag yu nekk ci ginnaawam ay xale yu ndaw ñoo ko topp amuñu benn njariñ dañ koy yàqal rek Jules Baldé mi ko bëgg Jules Baldé mi def lépp ndax Ama na dese moom ñi si des ñëpp mu génn leen ci entourage bi entourage bu baax amu ko Ama entourage am ñoom ñoo baaxul loolu moom mooy problème bi Pikine yéen ñuy woote deux cent pour cent Pikine seetaan ngeen Ama Balde man gisuma euh, Boy Niang gisuma Eumeu Sène gisuma ñiy woote maanaam naan Pikine la dëkk cent pour cent Pikine yëpp bu dee gëmu leen deux cent pour cent Pikine yi mais tas leen ko ngeen bëree seen biir Eumeu Sène Ama Balde ngeen mayante xaalis seen biir Ama Balde Boy Niang Boy ñaa Ama Balde Boy Niang Eumeu Sène parce que deux cent pour cent Pikine yi ngeen di man man loolu man man man loolu man man man gisuma ko ah mais Modou xoolal entourage am Modou macha allah pare taalibe Cheikh la summa salaatu taslimun xalifa ngi ñaanal Modou xaariñ lo <laughs> salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di bëggee yow Adamo yow vrai nday góor jigéen nga yow billaahi bàyyi ndey sa yi lii nday jeex na foo kafree la woon quoi moo gën yow nga nekk ndey fii nday du ne nday nga wax ko bàyyi ndey sa lii góor jigéen nga yow gaa gars yi salaamaaleykum Zimo lan laa la def yaa ngi may tooñ de Modou Lo moo leen tooñ man defu ma leen dara di wax ci Modou Lo daal nga traité ma daal tous les maa ngi gis sa benn vidéo ngay wax naan waaw affaire bi ah bëri nguur dafa metti ban nguur moom ak amaa Baldé rek a des si géew bi ñu duma ko daan ko nga naan nguur Macky ku doon bëri ak Macky Sall wala Amadou Ba na leen bàyyi tuwaar yi ni salteel man defuma leen dara dëgg lay wax tooñ nga ma mais baal naa la xam nga lu tax ma baal la parce que samay doom ngeen yéen ay doomu waali ngeen samay doom ngeen boo yeggee na nga wax sa papa waali mu defar leen seen dentition yi seen bëñ mu defaraat dentition yi defar ko tuuti yaa ngi dégg defuma leen dara Modou loo leen def 22 coups yi lay bañ a dégg far force di nga ko dégg 22 coups yi lay laa ilaha laa un ba 26 ay coups mosuma gis lu mel noonu fekk si la pikin duma la daan la ba waa pikin di sot loolu mus am ci làmb mus sa am ci làmb mais na jéggal naa la bon vent